waaw jërëjëf euh, maa ngi nuyu képp koo xam ne rek jot nga ci vidéo euh, ci audio bii nii waaw di ñëw rek ci sorti bi nga xam ne Dame Mbodj da koo def te muy sorti boo xam ne am naa ci ay jàngat yu am solo ndax Dame Mbodj nga ba nga demee ci plateau boobu noonu journaliste bu fa toogoon nanguwu laa poser question bàyyi ba dem mu ne Dame Mbodj neexuma waaye amaana nag. xeyna na ko de waye li tax posé wu la question lolou il faut que ñu ñew ci daam dana la wax lu tax journaliste bobu posé wu la question wa daam nak il faut nga xam yow yaay kan ndax ñun Sénégal yi nga xam ne dëgg rek mo ñor ñun xam nañ yow yaay kan motax poser les questions du yomb ndax ndaxte Sénégal bu fekkee né Sénégal dañuy wër ci gën pertinent qui plateau yi pour dissocier deug ak fen tek ko ci ay argument tek ko ci xam-xam wax ko ci au olof de façon claire nette et limpide ba nga xam ne bu ndaw sax mën na Voilà, jot wallahi je dis que bu dàmbuj nekul ci kaw it fait partie des meilleurs il faut que ñu nangul ko motax tax nag du journaliste yep ñooy ñeme pour poser ko question surtout ci dossier yo xamné ñom dafa am lañ ci wax lu bari lo xamné xamnañ ni téggu ne ci dëgg ndax buñu ko défé dañuy weeru ndax Dame devant les 17 millions de sénégalais dina la ko décortiquer tojal la ko par A plus B wan sénégalais yep ne yow ab naafeq nga la ngay wax dara amu ci.

nee na dàmbooj tojul fenn waa xam ngeen loolu moom wax bu yàqu la man lenn rek laay ñaan les patriotes ak sénégalais yi nga xam ne Sénégal rek moo leen ñor wallahi bu ma nee patriote nag waxuma rek ñi nekk Pastef rek déedéet képp koo xam ne Sénégal moo la ñor Sénégal rek ñor la danga nga war a xam ne chance la ci sénégalais yi ñu am ñu mel ni ay ñoom Dame Mbodj ay ñoom Pape Alé chance le ci sénégalais yi ñu am ñu mel surtout Dambodj ndax d'abord Dambodj dafa nekk ci société civile te une ñun Sénégal yàlla daf ñoo dimbali ñu am de société civile bu critique yàlla daf ñoo dimbali ñu am de société civile vous xam de faire conscience sur les enjeux politiques boo pare nag am société civile bu engagé rawati nak buñu yalla dimbalé nak ñu am société civile bo xamné ne macha jàng nañ fa ñu fa ñu wara a jàngee am nañu ay bagages intellectuels yu doy war yu ci melni ni vraiment dañ leen wara a parce que il y va de la survie de notre démocratie. kon man limay ñaan les patriotes moy compte YouTube bi nga xamné ne dàmbuj ubbi na ko te mu nek lu am solo. parce que nee naa leen li gën a am solo mooy l'information information mooy ni ëpp solo ci adduna kila gën a informé loo leen dugg rek mu raw la dama ne ki gën a informé loo leen dugg mu raw la ndax la muy xam mooy bari te yow doo ko xam motax information dafa nek lu essentiel motax tax bu ngeen avant les réseaux sociaux occidentaux yi dañ doon jël les médias nga xamné bobu réseaux sociaux amul ñepp télé lañuy sétane jël les médias di manipuler les peuples di manipuler les masses di gëmloo aduna bi yo xamné amul teguwul fenn te amul kenn ku mun a génn démentir ko ndax ñoom ñoo maîtriser média yi contrôler média yi amul fenn fooy waxee ndonte yow boo munee démontrer na ñoom la ñuy wax amul mais amuloo support bu lay permettre nga am accès au reste du monde pour wax leen ko moo tax ñu doon def lu leen neex lépp yomb ci ñoom tey boo leen gisee ñoom ay jafe-jafe ñoom c'est parce que tey l'information s'est démocratisée motax tax ma information moy li nga xamné dafa am solo kon nak buñu amé tay ñu ci melni ni am chaîne YouTube dem leen ngeen abonné ci massivement pas parce que Dame daf leen neex déedéet mais c'est pour préserver notre démocratie pour préserver notre démocratie Comme mon appel Bobla est lancé à tous les patriotes lanceurs d'alerte Sensibilisez-les. Y a aussi à travers votre communication sensibilisez-les les sénégalais nous abonnerons massivement massivement la chaîne YouTube d'Amboy. c'est très très très important ndax gis ngeen Pape Alé Niang bañ ko xañee télévision yi mais téléphone am lay teg taal ko trente cinq mille sénégalais jàkkaarloog moom di ko seetaan tey loolu mooy li nga xam ne ñoom mënuñ ci dara moo tax ñun képp koo xam ne gis nañ sa taxawaay Sénégal te Sénégal rek ñor la boo amee chaîne YouTube ak bu mu ci mënta doon mais les sénégalais dañ cee war a abonné massivement na sénégalais yoo xam ne sax ñoom seen xel moo ci dul dem ñoom dañuy seetaan rek jàll mais bu leen fàtte ne abonnement yooyu ngeen di abonné da koy dimbali pour muy mën a développer chaîne bi da koy encourager pour muy gën a muy muy muy gën a mën a sawar pour ñëw jàkkaarloo ak sénégalais yi pour wax leen li nga xam ne moom la état di nëbb pour fësal leen njuuj njaaj yi nga xam ne moom la ñu nekkee pour andil leen information yi nga xam ne moom lay jot te ñëpp mënuñ cee jot.

comment une partie de notre presse aujourd'hui est misolée. à Alenia, Diap, Binko Diap. Vous avez même boudé 24 heures, vous avez presse, une presse qui fonctionne. Au moins pendant 24 heures, lancez un signal pour am dolé à Drebi. Vous savez. Vous savez que au Sénégal, il faut faire des affaires. Je comprendre. en tout cas fi may ñëw daal mooy patriote yi leen wax ne journaliste boobu noonu attaqué wul dàmbu yéen la il faut nag ngeen woon ko seen bopp mu xam ne du moom ak dàmbuj li dàmbuj tekki Sénégal li dàmbuj di représenter senegal ci wàllu éthique wàllu moral jub jubal wax dëgg non du moom ak dambuj moom bu génnoon woote fukki nit duñ ko wuyu bu dàmbooj génnoon woote ay junni nit génn sénégalais yi ñoo dofatul sénégalais yi ñoo dofatul kon nag daam di la encouragé rek di la encouragé bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di wax na ñu ngi rafetlu sa liggéey ñu ngi rafet rafetlu sa taxawaay la ngay def xam nañ ne defaloo ko Ousmane Sonko la ngay def xam nañ ne defaloo ko Pastef ndax daam ñu bari woo nañ la sax pour nga dugg ci biir parti Pastef waaye nanguwuloo pas parce que da nga contre Pastef li déedéet parce que Sénégal moo la ñor ak fépp fu Sénégalais mënta ne bu subir injustice yow pare nga pour défendre ko. fépp sénégalais ne moo xam ci bépp boor politique bu mu ne boo xam ne dafa subir injustice yow Dame Mbodj pare nga pour défendre ko kon di la jaajëfal di rendre hommage bu baax a baax di la wax nga gën a góorgóorlu rek te xam ne fi nga teg sa tànk foofu la jërëjëf di ñaanal Sénégal yépp di wax les patriotes focus 2024 ndax 2024 soreetul